la culture et du patrimoine historique classé, mon cher frère Alunso, Madame, Messieurs les ministres d'Afrique et du Sénégal, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs présents aujourd'hui en cette du document, chefs coutumiers de tout le pays, ici présents, directeurs généraux, honorables invités, concitoyennes et citoyennes de Kaffrine et citoyens de Kaffrine mbir mi dafa xaw guddi moo tax li ma préparé wax yëpp ma bëgg koo gàttal ndax ci premier ministre ci ndigalu président de la république dafa bàyyi yitteem yëpp ñëw teew si fii kaddu yi nag kaddu ngërëmande la gërëm président de la république son excellence Macky bi mu nangoo bi mu nangoo ñu def fii onzième festival national des arts et culture Kaffrine bu mu nekkee Kaffrine ba tey c'est la première fois Kaffrine recevoir réew mi yëpp mais Kaffrine recevoir Afrique yëpp Kaffrine recevoir adduna yëpp loolu nag bu amee ñu gërëme ko mbaax ak mbëgg ak bëggeel bu président Macky Sall bëgg région de Kaffrine et département de Kaffrine mais loolu tamit bu amee monsieur le premier ministre loolu bu amee mu ngi jaar ci làmmiñ ci loxo ak ci doxalin le ministre Aliou Sow mu nekk fils de la région de Kaffrine moo tax monsieur le premier président Macky Sall defoon na région de Kaffrine lu bëree bëri bëri lu nga xam ne benn président mosoo ko fi def damay wax toujours sama xarit sama mag Abdoulaye ma ne ko bëgg PS lool waaye muy Senghor muy Abdou Diouf kenn defu fi li Macky Sall def fi ma ne ko ministre Aliou Sow ma ne yow ak président Macky ak ministre Amadou Ba bi fi teew ñu màggee ci keppaaru Abdoulaye Wade li fi Macky Sall def am naa yàlla def bu ñu dajalee président Senghor président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ak lu ñu mën a bëgg ci région de Kaffrine fii bu ñu dajalee lépp lu def président Macky Sall multiplié le ko par dix waxuma par ñaar waxuma par ñett par dix Macky Sall moo jëmmal Macky Sall mooy tabaxal suñu région tey monsieur le ministre stade bii nga toog nii bi mu defee ci réew yëpp président Macky Sall moo génne koparam defar ñu ñu defar fii te ba pare mu ne doyul wax naa hôpital yi hôpital de plus de vingt milliards te am naa mbay toog dafa musiba bi ñu dal ci le huit janvier passé ak ñëpp yëpp jooy lañu ko mënuñu gën a métti bu fi président Macky Sall def toog hôpital bi mu fi def ñu profité jaal ñi fi génn àdduna fii ci Kaffrine ci Sikilo précisément mais aussi ci Sakal ba ci région de Louga waaye yemul foofu lycée d'excellence ñu koy wër ci Sénégal ñu war ci def ñaar mu ne defal nañ ko gàmmu Kaffrine préfet gouverneur sous préfet administration tumuraanke woon ci ci Kaffrine mu war a def système administratif war koo commencé ci réew mi mu ne tàmbali leen Kaffrine Kaffrine Nganda Kaffrine Nganda soixante ans ñuy daw derrière un kilomètre de goudron président Macky Sall defal ñu ko goudron te mu ci ay fan yu néew dana ko def ci département de Malem dana ko def ci département de Koungheul ginnaaw bu mu commencé mbirkilaan Maabo yemul foofu mu def ne centre formation professionnelle mu def ko fii ci Kaffrine kon bu jaaree ci Aliou Sow tey ñu def ci onzième festival national des arts et de la culture mooy Xëddina Kaaba dëgg moo neex yàlla dañ doon wax est-ce que Kaffrine bi ministre Aliou Sow tànnee Kaffrine dañ doon wax ni lu tax ñu yóbbuñu Kaffrine Kaffrine ràññeekuñu ci mbirum culture waaye bu tey ñëw fii la capitale du Ndoukouman est une capitale cosmopolite et culturelle. C'est pourquoi, du fond du cœur, je tiens à remercier le ministre Alissou pour cet acte. Mais, monsieur le ministre, président la ville dafa raw lépp li mu def ci matériel ak ci bagage yi fi teg ci ci région bi ci ni mu le vingt-huit ci kër paase mu gën a ñu rafet ñëpp région bi yëpp àndandoo nekk wane ne Fesnac bii bii am Kaffrine tey beneen région buy jëm mu xoolaat boppam bu baax a baax parce que li Kaffrine def Kaffrine aura mis la barre très haut loolu mooy ak ñoom ma ma profité ci nag gars yi may signalé dama discours baa ngi a gudd ma gërëm itam dore chaque grand homme yaa ngi grand dame seen naa ci fii ci tribune bi maître Wade am na nag dafa am maître Wade ak maître Wade Sow maître jabaru Aliou Sow mu ñëw bokk ak tey jour bu toll yi may gërëm ñëpp nag gërëm population yëpp gis naa taxawaayu xale yi gis naa taxawaayu jigéen ñi gis naa taxawaayu mag ñi lépp lu ñu def nag te lépp luñ ci man dañ ko continuer di def ndaxte ñun dañu am fu ñu wóoru te Macky Sall mooy suñu wóoru bàyyi te Macky Sall war nañu yoon yoon woowu mooy la voie de la construction et du développement de la région de Kaffrine je vous remercie. Parce que de notre un parti pour ce qui concerne la région de Kaffrine vient d'être magistralement mis en exergue pour de Kaffrine. Je voudrais, avant monsieur le ministre de terminer, parce que je vois non, vous que la région de Kaffrine retient cette date. La région de Kaffrine a compris le message ma la région de Catalogne est fière de tous ses élus, est fière de tous ses fils. Mais souhaiterais que le président Macky et vous reteniez que docteur, monsieur le professeur Aliou Sow est un homme avec qui il faut savoir composer, comme il faut savoir composer avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow et tous les autres hommes politiques de la région. Il l'a dit. à mon précédent au micro, et je voudrais confirmer que, au-delà du fait qu'appartenir à un régime implique solidarité politique et gouvernementale, je voudrais de mon terroir, de mon berceau natal, vous dire, vous bien vouloir dire à M. que nous le remercions pour les belles et grandes réalisations nous les remercions pour les perspectives prometteuses et que nous avons à cœur de mériter de lui. Parce que chez nous, la confiance ne se constate pas seulement, elle se mérite. bokki Saalum bokki Ndoukoumane bés bu ay ci kanam ñu ko dalee tey Sénégal yëpp da nga ñëw fii bitim réew ñëw lu ko waral. festival bi nga xam ne mooy FESNAC festival national des arts et de la culture moo uti doomu Sénégal yëpp ñu ñëw maa ngi di gërëm ci ñaan ngeen leen ñaan ngir ñu ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm dundat ñu ci jàmm jógee ci bàyyi ci jàmm yóbbaale jàmm fekk daan seen yoon waaye maa leen di ñaan loolu tam yëpp lii xew kon lii ñëw muy ci Kaffrine muy ci kër Baye Dafa Ndimlaan muy dëkk ñooy maanaam ak lu mu mën fi mu jëm mu jëm waxatuma def lii na ngeen ko liggéeyoo def ko sa mbir wan Sénégal wan Afrique ne lii ñu jël benn kàddu defal ko lii mérite nañ ko yéene nañ ko te lii ndorteel na loo xam ne léegi dañu ñëw ci taaral suñu dëkkuwaay ci ñamal ko ci jëmale kanam kanam da ngeen di bokk seen xel maa ngi dëgg sama kàddu foofu di wax ne bëgg naa lool opérateur bi nga semis naa lool à part à part à waa du mel maa ngi nuyu waa kawoon di yóbbu mu ñëw ci kàmbu fay ak mboolem siin siin ku war mburu tudd mbëg te Oganda bi te taxul la koy dimbali nga baax jokkoo mooy li ñu bokk boo fi jógee tey dem Gambie muy ñaari réew ñu bokk lu bëree bëree bëri ah, waaye aada bi ngay fekk fii moom ngay fekk foofu seen ministre wax na ko léegi boo demee Guinée loolu la boo demee Maroc ñi fi jógee fii di ziare ji foofu ak ñiy jógee Maroc di ñëw fii di seet suñu mag ñu baax di seet suñuy valeur bari nañ loolu dëgg la adduna bi noonu la war a doxee loolu moo tax président am une vision panafricaniste loolu moo tax mandaam à la tête de l'Union africaine en tant que ressortissant du pays de Senghor doon mandat boo xamante ni at Afrique dina ko fàttaliku en termes de bilan en termes de réalisation dootuñu guddal wax ji festival yi maa ngi leen di mm-hmm. gis naa fi de grandes figures de la culture ñoo xam ne ils font la fierté du Sénégal sachez que président bàyyi na leen xel loolu moo tax ñu jox ay moyens yu substantiels à la culture bi may ñëw it nee dina ko dolli incha allah préoccupation yi ngeen am bu ma delloo Ndakaaru dinaa ko ko wax won ko ni ces préoccupations sont justifiées parce que li ngeen organisé yéene bi ngeen am ak li ngeen di def ci biir nit ñi jar na mu dolli leen jar na mu yokkal leen et incha allah en tant que premier ministre dinañ ci def lu ñu mën balaa ngeen di changer micro maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu waa Kaffrine yëpp di nuyu tous les membres du gouvernement qui se sont déplacés maa ngi leen di sant yéen yëpp j'ai vu le ministre de de parce que bu ñuy wax culture ak artisanat dañoo jege lool. j'ai ministre de la fonction publique ndax moom doomu Kaffrine la balaa muy nekk doomu Mbacké moo tax mu ñëw fi tey maa ngi nuyu tout le commandement territorial ce sont les vaillants républicains mooy nit ñi nga xam ni ñun ñëpp war nañ leen respecter ils sont là au service de l'État impersonnel li leen mooy rek na réew mu tegu ci yoon na dox li yitteel mooy na état taxaw yitteel mooy na état dëgër ñooñu ñun ñëpp dañuy liggéeyoo. dëgg la bu ñu toogee ñun ba waxtu wi ñu xam ñoom li ñuy def bu ma ñëwee fii en tant que premier ministre mënuma lu dul jottali leen wax leen toute la satisfaction que le président de la République a à votre endroit. mën naa ko seede mën naa ko wax monsieur le gouverneur yow ak sa équipe yëpp président luy félicité les forces de défense et de sécurité gis nañ ñoom niñ fi teewee pour assurer notre quiétude c'est ça le Sénégal monsieur le ministre le festival est ouvert mais yëpp am ci jàmm jeex ci jàmm ñëpp delluwaat ci jàmm amiin amiin bàyyi seen kër ci jàmm fekkaat ci jàmm je vous remercie